wa man ihtada bi hadihi ila yawmi din mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñi ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp te di ñu topp ci seen seen MKTV muy Muqaddimatul Xidma TV di seenu Grande Mosquée de eh, di leen nuyu di nuyu jullit yi yëpp ak fu ñu mën a nekk di ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sun borom mu yàggal ko fi te wéral ko Euh, di am mbégte bu baax a baax di ñëwaat ci seen émission bi nga xam ne euh, seen bi da leen koy defal ci weer wu nekk ñaari yoon muy émission gàggantiku te mbokk yu bari di ci di ko yittewoo di ci gàggantikoo ci seen diine ñenn ñu mu leen di fàttali lu ñu xamoon ñenn ñu mu leen di xamal lu ñu xamutoon euh, loolu nag tax na ni ko jullit di yittewoo mu doon loo xam ne tamit lu seen bi yitte yittewoo la moom it ngir di leen ko indil Euh, xam nga ne nag émission bi jàll yëpp yi ci ëpp ci ay laaj ak ay tontu la jëm la jëmoon yi nga xam ne moo fi rotoon ci ay laaj ak tontu ñu ñu tontu ko lu tee tamit incha allah bokk yi nga xam ne bëgg nañoo laaj bu ñu yónnee laaj yi ci whatsapp 77 531 91 98 yeneen émission danañ ko tontu incha allahu rabbi tey nag dañuy ñëw ngir continuer euh, euh, suñu émission ci. ñu ngi woon ci buntu làpp bu ngeen ñu daa topp xam ngeen ne ci biñ mujjee indi bind yi ñuy joxe muy bind gàggantiku yi ñu ngi woon ci buntu laab ba léegi ci biir loolu nag lañ la bëgg a woyalaat incha allah kon ñu ngi fii ci Daaru Salaam Ndaam kër Serigne Mbacke Abdourahmane euh, ngir fas yéene woyal bunt bi nga xam ne ci lañ tolloon euh, bala ñu ko bala ñoo wax li ñu war a waxtaane ñu jox Serigne bi mu nuyoo Serigne Mbacke bisimilah. Euh, aoudu billahi min alcheytan bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala sayidi almursalin maolana muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, sëriñ Abdoulaye maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel ñëpp ci ëttub xam-xam ëttub diine bi dellu si di leen ndokkeel di am mbégte ci dajawaat ak yéen ci noonu nga ko waxee ci bunti xam-xam yi nga xam ne baaxoon nañ ko seq di ñaan yàlla defal ñu ci tawfiq defal ñu ci taysiir waaye nangul ñu lépp luñ ci def sëñ jërëjëf euh, sëriñ Mbacke Abdourahmane euh, jërëjëf it mbokk yi nga xam ne ñoom la àndal émission bi di sëñ Abdou Khadir sëñ euh, mbokk yi kon tey li ñu war a gàggantikoo ci émission bi dañu ñëw ci lu am solo loo xam ne yitteel na góor yitteel jigéen muy al aydu wan nifaas maanaam li ñuy wax mbërëg xëy na sunu mbokk yi nga xam ne ñoo gën a nekk ci dëkki taax yi di ko tuddee règle maanaam dama nekk ci sama période lu ñu ci bëri moom la ñuy wax loolu nag dafa am ay sart yu ci lislaam tëral yoo xam ne jullit bi daf ko war a xam maa dafa am solo ci ci nit ki diineem lépp loo xam ne moom la ci war a xam ci loo xam ne da koo war a jëfe wala mu war koo moytu te lenn lu ci nekk rek mën naa indi ay conséquences ci ak jaamu yàllaam yu wóor man wala ci wala mu mu doon lu koy lor tamit su ko defee kon loolu tamit dafa doon ponk boo xam ne sunu mbokk jigéen yi yitteel na leen waaye tamit suñu mbokk góor yi ndax tamit am na ci période yoo xam ne tamit su ci nit ki tollee góor daf koo war a xam euh, moytu ko jigéen nag moom rawatu ci moo tax sëriñ bi euh, lim ñuy gàgganti tey mooy suñ koy laaj lan mooy ñëw ci dàmmi nifaas muy deret yoo xam ne nit ki daf koy gis ginnaaw bu mu amee doom mbërëw nag moom am na ay sart waaye ci nit ki dana koy gis ci bu tàmbalee ci benn âge bi ba fi mu loolu nag ci la ñuy war a da koy bañ waaw yoo xam ne yaakaar naa mën nañoo jàll ci nifaas ba noppi boole leen ndax ñoo ko bokk mhm. ndax xaydu ak nifaas mhm. sorewuñu ay àtte mhm. nifaas ci luxa mooy ak am doom mooy wilaada dañuy wax ne nafusatil mar'atu ida waladat kon jigéen ju am doom loolu moo tudd nifaas li gën a bari nag am doom ju day ànd ak deret bu deret ji seetee nag la ko sang di war féeg deret ji seetut mënta julli mënta woor mm. bu setee mu sangu ñu koy mais ñoo bokk ati boobu waaye kon léeg-léeg jigéen am doom set wi mm. ci du tax dara waaye du fekkoon day sangu ji mm. bu dee gis dara nag ginnaaw am doom ji mu xaar ba deret di jeex deret jooju moom it dañuy wax ne gën jaa néew amut ab mën naa génn benn yoon doon genn toq jeex surtout léegi nga xam ne bu dee ci kër docteur yi dañ lay jox garab yoo xam da koy daal di génn mu jeex ñu bari ci jigéen ñi buñ amee doom balaa bis bi ñu set foofu it mën nañu bàyyi xel ne buñ xasee set dañoo war a julli war a woor bu dee koor. ay jàpp ne faaw ay 40 seen i yi bopp yoo xam ne doo xam fu ko jëlee. déedéet moom moom set la aju. Hmm. bu fekkee da toog ñetti fan mu set. julli war na la waaw sangu yu tàmbalee julli tàmbalee war kon loolu mooy mooy nifaas dara jooju di génn bi sababul wilaada. Hmm. xam wax nañu bu dee xayd amul sabab kii nag am na sabab mooy ak am doom moo koy waral. bu ànd ak deret ak bu am àndul ñoo ci yam ndax jëmmi nifaas mooy am doom gi donte dañ koy lëkkale ak deret am doom gi dégg nga euh, gëm jaa bareem ci mazhab Malik mooy ñaari weer ñeent juróom fukki fan mooy mazhabu imam Malik nga xam ne bu de jigéen amoon doom muy génn bi set ba mat ñaari weer lépp nifaas waaye su ñaari weer yi xasee matit foofu la koy dagg wuru caa teg dara wuru caa teg dara hmm. day daal tàmbali julli ak woor hmm. moom itam lañ la waxoon ci ki nga xam ne day dag-dagee ñoo yokkaate bu doon gis yi fan yi du ko gis day wàññi ba mu mat ñaari weer muy gis hmm. kooku ña ba mu mat juróom benn fukki fan kon mën naa wilaada moom duñ ko duñ ko duñ ko tënk ci ay ay ay moxtaar ak amul yooyu moom amul yooyu moom amul am doom la rek hmm. Hmm. kon su su darajee dagg-daggee day day day nit day wàññi bis yi muy gis hmm. ba may ba may matal juróom benn fukki fan kon boo amoon na ëpp ñaari weer ndax bis yi muy gis rek lay wàññi hmm. su ko defee bis bu mu gisut nag bis boobu dañ koy jàpp ko laab day sangu ji te julli ko euh, bu fekkoon tey daa gis mbërëg daa gis nefaas hmm. ba mu yàgg mu dagg mu toog lu mat fukki fan ak juróom gisaat door gisaat dara dañuy jàpp ni nifaas ba jeex lii lu bees lii lu bees la te xayda lay doon. Hmm. day mel ni jigéen daal tàmm la war gis baax. su fekkee daa gis nifaas ba mu mat 15 jours. waaw mu doon gisaat lu dellu si waat ko lañ koy tuddee. mbërëg lañ hmm. su ko matul nag nifaas boobu mu wut. waaw ah, kay loolu it ma xam hmm. mhm. moom itam moo mbërëg ñoo bokk ay alaama. mooy fenn fenn yooyu ak xasaw bu ñuy wax. su ko defee nag ñoom ñaar am na juróom-ñetti mbir. xam ne julli bu ne war na ko xam képp ku nifaas na ci moom wala xaydu muy mbërëg na ci moom dañ koy tere juróom-ñett yi juróom-ñett yi moom da ko war a moytu waaw loolu jullit bu nekk war na ko bàyyi xel waaw bi ci njëkk mooy wër kaaba ga hmm. jigéen ju gis baax wala mu am doom du wër kaaba waroo wër kaaba kon ku demoon màkk aji farlool dal ko fa du wër kaaba gi bu dee aj màkk jigéen ñi mën naa def lépp ba mu des wër kaaba gi waaye nag téewut mën naa armal du ko tee ànd ak nit ñi waaye du ñëw ci kaaba gi yërs yëpp mun na dem arafa dem mina def yëpp bu ko defee saa yu laabee nag dem dem def tawaaf léeg-léeg njumti am ci koo xam ne nii day ñëw war a armal armalul ngir ne seetut loolu njumte rëy maanaam ñàkk set teewut nag bu dikkee bu màkk moom du ci kaaba doon ci tawaaful ifaada la sax ma du benn kay koy day day nég du yàqu du yàqu ndax man mën naa dem mina dem arafa hmm. bu laabee ñëw fay si ko waaye man di bàyyi xel léeg-léeg ñu ne day gis ñu naan tawaful ifaada dañu bu ñu rëccee bis bi rek déedéet ba weeri dee lépp mën nañ ko mhm. kon bi ci njëkk mooy kooku du tawaaf tawaaf yëpp ci yem nag tawaaf ak farataak tawaaf ak sunna ak gunaa fi laa ci yem képp ku gis baax du tawaaf hmm. ñaareel bi euh, du leextikaaf du leextikaaf ndax leextikaaf ci biir jàkka lañ koy def hmm. te jigéen ju gis baax wala mu am nifaas du tàbbi jàkk bu ko fekkoon jàkk ci saas daa war a génn. itikaaf mooy fukki fan yi ngay taxaw. waaw itikaaf mooy hmm. ab jaam day ne ci jàkk ànd ak koor di jaamu yàlla. Hmm. man naa doon 24 heures maa li gën a néew rek ndax ànd ak koor faaw mu doon guddeeg bëccëg. Hmm. wala boog mu nekk ab bëccëg ak dara ci guddi. waaye bi gën a mat mooy fukki fan. fi ñu ko gën a soppee it mooy ramadaan rawatina fukki fan yi mujjee ngir dàkk ci la xadr. sallallahu alayhi wa sallam musta bàyyi li ba ni mu génne àdduna. gis. baax baax bu ko tàmbale woon hmm. moom jigéen ji ba ci biir mu gis baax day génn da koy dagg koy dagg ñaar hmm. bi julli hmm. jigéen ñu gis baax du julli genn julli nag julli farata yeeg naafile yi ci am ba ci sujjóotub alxuraan julli la julleeg néew julli la nit ku gis baax wala mu am meret du julli genn ci moom bu jàppoo nit laagut du te du ko fay tamit moom dama déedéet du ko fay bu jàppoo nit laagut loolu mooy ñetteel bi mm-hmm. ñeenteel bi dañ koy tere woor ramadan dikkoon jigéen ñi bis bu mu gisee baax du ko sañatee woor su wooree bi ci digg bi mu gis baax na añ day dagg koor waaye nag da koy fay moom waaye kenn du ne tey dama baaxoo gis baax kon du ma woor suba mm-hmm. moom da ngay bàyyi ba mu dab la masal jigéen na xam ne daal fukki fan ak ñett ci weer lay gis baax ñu xëy ramadan fukki ñett mu ne ah tey daal du ma woor ndax tey sama baaxoo la ñëw mm-hmm. déedéet wooral ba baax bi ak si nga dab ko hmm. moog dama baaxoo si buru tey yow hmm. tax du woor tey boo ko defee danga fay kafaara hmm. dégg nga kon du wax ne mukk ne tey bis bu mu baaxoo gis baax la kon du mu woor na woor rek su gisee baax yàlla ko da ngay xaar ba mu dab la rek mu dab ko kon euh, ko du woor genn koor koor ak farata ak koor naafila ñoo ci yam saa bu ko defee ci koor gi donte daa woor ba takku sànni suuf mu gis baax koor ga yàqu noonu waaye day fay koor gi moom. waaw ah, dana fay koor yi moom bu dee farata ramadan da koy fay. Hmm. bu dee koor koor gu mu doon fay mu yàqu. Hmm. bu laabee da koy fayaat. Hmm. Eh, kon du wër kaaba gi du leer ci kaaf du julli du woor ñeent ngoog. juróomeel bi mooy dee su ko fase. jigéen moo tax. sew sew bu am solo ngi baax wala nifaas kenn ko fase. kon jigéen guy gis raayagal ci période bi dee su ko fase. su boo ko fasee daf nga lu xaraam. ci mësa bu Malik fase mi tàbbi na mhm. waaye bu dee fase mu nangu fayre dañ koy dañ lay forcé nga fay leen ci saasa bu dee ñetti fase nag moom araam na am na bàkkaar waaye mu nanguwut fay leen waaye bu dul loolu rek dañ koo dellusi si moo tax moom mbokk yi bëri xam naa ne waaw xam nga nit ñi li gën a bëri tax ñu war teey waaw faseem na ñi koy def bëriwut ndax cig dal la war a doon waaye mer rek doo xam. xale bu ñu xuloo rek moom dañuy daal fasare daal ñu xool ba xam jigéen ñaari sëy baat jigéen bu tolloo gis du neex deret ndax wéra di la waaw loolu mën naa waral mu mel jikko ju bokkut ak ji mbaaxoo mel mm-hmm. bu ko góor gi nuróo ci loolu mën na ko fase ci xaala boobu mm-hmm. am bàkkaar mm-hmm. fase lañ wax nag waaye takk soxna moom sartuñ ci na laab di bu ñu takk soxna mën nañoo takk at yëpp donte mi ngi gis rek laaj ni ndax fi mu toll seet nga wala setoo waaye nag buñ koy fase moom nañ ko fase ci laab kon dëgënut fase ci bërëb loolu mooy juróomeel bi ak joteeg soxna hmm. kenn ci laal joteeg soxna jigéen bu xasee gis baax wala ni fa ba muy set joteeg moom dafa xaraam li tàmbulee ci bëti moom ba ju boo xam bànneexu sa dëgënut boobu moom jigéen gi bu ci borom këram waaye sañ naa lànk daa war a lànk daa war a lànk sañ naa lànk daa war a lànk hmm. ndax laa taa'ata li maxluuqin ndax bu ko nangoo mayu yàlla mayu yàlla mi ngi koy dimbale ci mooy yàlla te loolu dëgg la hmm. wala ta'aawanu alal daa war a gàntu lu mu ci bañit bu ko ci bañ mhm. Mhm. ndax kuy def loolu jubut mhm. ku jubut nag dee su ko jàppale ci ñàkk ñàkk jub sëñ Abdou Lahad kon euh, dee su jotee moom ci waxtu woowu waaw daa waxoon na leen bàyyi ci waxtu woowu dégg nga euh, bi ci topp mooy tàbbi jàkk dugg jàkk waaw sëñ bi daa jàng wala bay texaalal ma wax tamit jigéen ju def jàkk ci biir këram am barab bu mu def ci këram def ko jullikaay wala waa kër gi def ko fi bu sër bu mu fa tàbbi bu amoon ci néeg sax fu mu sa sa jaadaam jàppe ko fu muy jullee bu seetu na mooy du foofu jigéen daal bu nekkee ci bu nekkul ci bu nekkee ci période am warut a dugg jàkk waaw warut a dugg jàkk kon na bàyyi xel la ñu bañ bañ ñu dugg jàkk rek jàpp ne jàkk ji mag dañ tabax ci penc ma tax ñu wax mm-hmm, mm-hmm. waaye jàkk ji biir kër gi ci la bokk barab bi mu waajal ci dugg xam nga am na kër yoo xam dañ fa def jàkk joo xam ne boo xam ne dañ ko faa waajal ngir julli foofa uru fa uru faa nekk léeg-léeg jigéen ñu toll foofu ñu leen ko baleloo kenn xamul dima noonu mm-hmm. bàyyi xel ne ku seetul dee su ko baleloo jàkk waaw yëpp dama da bàyyi xel te ñuy bale jàkk yëpp yooyu yëpp da jar du sóoraale ku ci sëtul rek la gën mooy nga toog ba a ñëw di jële si laal ab kaamil mooy juróom-ñetteel bi laal ab kaamil bu mat sëkk waaw kaamil mooy loo xam ne lépp alxuraan a ngi ci waaye alxuraan dong ci nekk loolu moo tudd mushaf bu dee ay jukki du kaamil bu dee téere tafsir du kaamil jenn wax na ci waaye alxuraan kese moo ci nekk waaye alxuraan jëpp ngi ci hmm. loolu moo loolu moom dañuy tere ku seetu mu di ko laal allahumma bu doon ab sëñ daara mbaa dongab daara mm-hmm. ñoom mën nañu laal kaamil ndax ñàng ko laaj kon ki nga xam ne mbirum jàng la waaye ki nga xam ne kon jigéen gi jàngale alxuraan bu bu setul sañ naa laal sañ koo xam ne ab sëñ daara la ab sëñ daara la wala ab soxna daara soxna soxna day jàng mm-hmm. gis baax mën naa laal kaamil loolu ah, waaw nañ ko moom mm-hmm. rox sala la waaw xanaa ku yore janaaba moom janaaba moom du laal kaamil ndax kooku mun naa daal di sangu ji léegi mhm, waaye ki yor baax tub ko boppam te mënta laabal boppam moo tax dañuy wax ne bu setee te sangoogut mhm. dootu sañ a laal mhm. ci moom laaju léegi dara ji na mu war a sangu foofu mu amatu sañ-sañ donte jàngalekat la amatu sañ-sañ laal kaamil ndax léegi li ko tee laab ci moom la waaye nag daganal nañ ko tari alxuraan. kii ñu wax nii ne du laal ab kaamil mooy kon ki nga xam ne du jàngalekat du kii waaye mën naa tari moom. laal kaamil lañ ko tare mën nay tari lu dul ni itam daa dem ba dara ji set te sangoogul kooku moom sañatu tari kële ne mën nay tari ngir bañ a fàtte. waaye bu xasee la set ci ci ci deret ji sangu dese ko fii ak sangu dul sañatee tari alxuraan. kon du ko laal waaye du tari loolu bokk na ci yi nga xam ne yi euh, ñu war a xam la ci jigéen ju setut laal alxuraan ji waxit nag mooy yor kaamil bi nii la kaamil ne ci aw wëlis wala ay téere nga gàddu ko wala ci ab saak ci la bokk yooyu yëpp ci la bokk du ko yor ci genn anam du ko ëmb ak def ko ca na mbuus gi laa yor ci kaamil bi la bokk loolu yëpp day man di bàyyi xel léeg-léeg waaw ah, da ngay gis bant bëgg ko ci àndale. waaw kay ci àndale. Ah. loolu lépp laal kawe bi la. Hmm. yu mel noonu ku ci toll na wuti keneen ku laab. Hmm. mu ñëw bu dee bale wala nangam mu toxal ko kawe bi. la kër kër kër sëñ daara yi. Hmm. dañuy ràññeel kawe bu ñuy balee dañuy jël di sànni rek. waaw bàyyi xel fu jigéen bu ñu tolloo foofu. loolu jàpp naa ne sëñ Blaat du lu am solo la. Euh, buntu bu mat di bàyyi xel la. bu mat di dimbale ne ñu fi toll la. ndax dañuy soxla ndimbal. waaw ñu xam ne yàllaa ko bind noonu. loolu nag du du du taxut jigéen ji doon sikku sikk xool ko azan jooju alxuraan di wax. Mm-hmm. sobeel lay firi rek. waaye du tax nag ñu ne dañ leen di berfee. Mm-hmm. ku gis baax kenn du bokk ak moom ki déedéet. mën nay bokk lekk bokk lépp lu ñu daan def na koy def ak nit ñi ndax du tax nag ñu di ko ber ber boobu. beruk jaxasoo kenn du jaxasoo moom di bànneexu ci moom la wax waaye ci des nag moo ñëpp yam mm-hmm. nañ daan bokk di lekk mën nañu di ko bokk di lekk li am solo rek mooy nag moytu ay yéreem. yi muy jëfandikoo di bàyyi xel boppam ba lu wër taq sobe du taq sobe baa bu taqee it mu mën ko gaaw a setal ndax léeg-léeg sàggan nag ba mu taq ci ay yéreem yëgu ko di ko julliwaale yëpp te loolu yiñ koy aaye yëpp ak même ba ci jaxasoog boroom këram bu bu setee dafa war a sangu ba noppi bu sanguwut sañu sañ te jaxasoo bu seetee te sangoowut sañu ko allahumma ndox amul hmm. bu ndox ñàkkee ba man loru nag sañ na ko jërëjëf waaw fépp fépp mi ngi ndox a ngi am bu setee laa balaa laab mooy mu sangu maanaam deret ji jeex na day sangu door laab door a mën a julli door a mën a woor borom këram door a mën a jàpp hmm. li ñuy lépp nag mbërëg hmm. jigéen ji set ci dereti nifaas bu sangoo julli na ko war war na mën a jaaxasoo moom hmm. la ci xanaa mu àgg ci bañ a wér wér gi am ànd ak loolu waaye ci sariya teratuñ ko jërëjëf sëriñ bi dafa mel ne tomb bu ama am solo la boo xam ne bu yitteel la jàpp naa ne bokk yi danañ ci jariñu bu baax a baax a baax ndax euh, dafa doon loo xam ne ñëpp koy dund te ni ko sëriñ bi waxee léegi mbir la moo xam ne dafa am solo ci diine te bëri tamit loo xam ne su ko ci nit ki defee te waru ko def mën na ci am bàkkaar bu rëy rëy kon lu mat a xam la lu mat a jàngat la kon sëriñ bi ñu jox la kàddu yi nga tàggatoo jërëjëf seen daat da wax ne yàlla nañu yàlla defal tawféex defal ñu dégg ak topp mm-hmm. xam ne bunt bu am solo la mm-hmm. buntu laab jullit bu ne war na ci def yitte def fexe ba njabootam yitte woo ndax yu mel nii boo ko teelut a xam ba màggee ko man ngay takkook sobe di wéy te bokk na ci lori sobe rek seytaan da la ñeme te nit nag ku seytaan a ñemee rek fu mu nekk na ci wetam dana ko def loolu mu bokkut waaye ngir mucc yooyu yëpp nag fexe ba xam yi atte yi aju di ko jariñoo loolu am solo la. Mm. yàlla yàlla dëgëral leen dooleel yéen tam ñu mm. fexe ba nit ñi di jàppale nit ñi ngir ñëw. Mm-hmm. mën a xam seen biir ngir mën ko dundam gën a mate. Mm-hmm. amiin jërëjëf sëriñ bi li nga ko waxee muy lu am solo ndax loo xam ne moom mooy buntu bi lay tàbbal ci gépp jaamu yàlla li nga xam ne mooy mooy mooy moo la ciy setal loolu it lu mat a xam la kon ñu ngi lay sant bu baax it di la gërëm di ñaan suñu borom mu defal la tawféex ak wér. di sant it bokk yi nga xam ne ñoom lañu àndaloon di leen dig daje incha allah ci seen beneen émission gàggantiku Euh, di fàttali mbokk yi tamit képp koo xam ne bëgg nga am ab laaj boo xam ne bëgg nga koo laaj ñu tontu la ci émission gàggantiku Sëñ Abdou Khadre dana aviser numéro yi muy 77 531 91 98 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam